waaye njëkk damay door ak yow rek ci bi ngay door di dugg ci wàllum internet. Hmm. bokk nga ci ñi njëkk dugg ci wàllum internet foo gisee mbir yi bàyyi fi rajo bàyyi fi télé teel a dugg ci internet avant ñu xam yi yëpp boobu lan nga gisoon. waaw xëy na dogal yàlla bu ñëw rek li ñu dugal ci rajo moo ñu dugal mën naa ne ci internet. Hmm. yàlla dafa dogal sunu mag Serigne Fatah yàlla dogal mu teel a liggéey ci rajo municipal bu dakaar hmm. boobu rajo RMD. boobu rajo yi bareegul ni mu bare jaare ci euh, mbokkam Cheikh ma Tidiane ñaŋ bi nekkoon fii wal fajiri waaw euh, rajo bi boobu moo am télé bi amagutoon mm-hmm. ci moom la jaare woon mu daan ko invité wal fajiri d'abord foofu la njëkkee ba bi muy jógee wal fajiri moom Oustaz Cheikh Tidiane Niang di dem RMD mm-hmm. mu ànd ak Serigne Fata mm-hmm. euh, ci di ko fa dalal waaye bi mu demee it bay dem màkk mu bàyyee ko émission mu koy anime loolu moo indi Serigne Fatah daan ma invité ci rajo bi RMD ba bis ma toog di déglu rajo bi Serigne Fallou Cissé maa ngi dégg sa bànn annonce bi muy wax ci la ci la bokk mhm. Serigne Fallou woote ci émission bi bi mu wootee après ma woo ko di ko félicité mhm. ci dégg dugg bi ma dégg mu dugg ko mhm. ci gàttal ci la ne ma waaw yow doo ñëw ma invité la fekk njëkkoon naa dem. ànd ak sëriñ Fata mu boole maak moom. Mm-hmm. ca rajo Dunia. rajo Dunia boobu jëmm jee ngi gën a ndawee. Mm-hmm. ay 2005 yooyu. Mm-hmm. sëriñ fataa ne ko yaa ngi may invité. waaye sama rakk ji su ma sañoon. nga ñam ko ba xam noonu la ko ko waxee woon. sëñ fàllu ne ko duma ko jox mikoro muy wax de dama koo xam. ndeysaan ca ful la jë. mu ne ko ma ne yow laa invité yow yaay wax moom du wax de xaw ma ko. noonu laa toogee ca technicien ba ba émission bi jeex. Mhm. ah bi ma ko waatee nuyu ko félicité ko. Mhm. mu ne ma yow doo ñëw ma invité la. waxuma ko dara. ma ne ko ban bis mu jàppal ma bis. Mhm. ah biñ demee toog mu wax ma boo toogee ci studio bi dangay ngay mel na yaa ngi toog ci sa néeg. bul am benn stress. wala benn pression. ñu def émission bi ba mu jeex mu ne ma bàyyi naa fataa ni mu mënoon a tooñee dootuma ko invité. ndeysaan loolu dugal ma ci rajo depuis 2006 la woon. sëñ Fallou di ma invité ci émission taaru Sénégal. ma ciy dem léeg-léeg ma ñëw léeg-léeg ma toog ba mujj gi daanaka ma moom ñoo doon def émission taaru Sénégal. loolu la dooree 2006 7 8. ma nekk ci rajo rajo Dunia. Mhm. en ku ñuy invité. ba 2008 tamit. li ma yóbbu ci rajo moo ma yóbbuwaat ci internet bi. Mhm. ba tey mu jaare waat sama mag Serigne Fata. dafa am wóllëreem bu nekk États-Unis mhm. ñu koy wax xaaj Daouda mbay mhm. ñoom ñoo ubbi Seneweb moo benn mbokkam bu ñuy wax Salaam Fall. ci la sàkkoo woon ci moom boobu Seneweb mi ngi am rajo boo xam ne ni rajo en ligne la. ñu koy wax Seneweb rajo. mu fay def émission. mooy Seneweb bii nii ba tey. Seneweb bii ba tey. site bi nag mi ngi nekkoon seneweb point com. moom mooy premier sit ci Sénégal boo xam ne ubbi nañ ko fi ba ci réew yu bari ci Afrique ci noonu lanu ñu nekkee di def émission sëñ Fata buy dem émission léeg maak moom ñooy ànd mhm. boobu Sénégal ñu ngi nekk fii Sacré Cœur mhm. fi wal fajiri nekkoon kër Sid Lamine bi sore wutoon ak studio Seneweb bi macha allah 2008 ci lañ dugg ci internet mhm. jamono yooyu maa ngi def émission bu tudd jataayu lislaam mën naa ne euh, bokk na ci li gënoon a siiwal émission boobu mooy Souleymane Dil Diop. waaw ndax jamono yooyu la doon def émission dégg-dëgg. te ñu bari dañ doon dem talaata di toppi émission bi. Seneweb ni ñu defee woon émission ak sama émission muy jataayu lislaam ñoom ñaar ñoo dendoon nii. Mhm. ba ñu bari danga doon jot jamono yooyu amul woote téléphone. comme di wax ak yow nii direct. Mhm. lu dul xanaa ñuy def direct ci rajo bi. Mhm. waaye bu dee émission yi dañ la defaloon benn. page boo xam ne boo duggee boo dégloo. li ñuy def comme léegi commentaire amutoon commentaire day ñëw direct ci sa ci sa email. waaw. ñu bari dañu la doon bind wan la ne ah dama duggoon rek doon déglu Jules Diop après ci laa génn. Mhm. yem ci sa émission jataayul islam déglu ko mu am solo. ñu bari ci la ñu xamante ci internet bi. Mhm. loolu mooy dox may def foofu jataayul lislaam mhm. ba mujj di fa def émission daayira bi. am na émission boo xam ne daara ji la tuddoon maag Serigne Fata. ñu ko daan def. ba mujj gi ñu jógee ko ci émission bi ci euh, rajo bi indi ko nag mu nekk vidéo muy aaxiru zaman aaxiru mhm. zaman rajo siiwal la dooree waaw gannaaw bi ñu nekkee ci rajo lu mel ni rajo Dunia nekk nañu Seneinfo mhm. xam nga rajo yooyu yëpp gannaaw foo après la mujj nekk si rajo siiwal Euh, siiwal lañ dooree émission aaxiru zaman mu nekk émission rajo. Mhm. defe naa émission la boo xam ne ump la. si ak ñu fa daan dalal yëpp ba ci Serigne Fallou maa ngi koy dégg. mujj gi maa ngi moom ñoo doon bokk émission bi. dëgg la li yàlla lay def. Mhm. moo ma njëkk invité ci émission. waaye ci mujjug dundam man maa ko daan invité ci émission. dëgg la te loolu moo doon reefam. waaw bi muy nekkatul dunia amatul fu mu waxee. yow yaa ko doon invité maa ko daan invité. Euh, damay wax ne sama. carrière ci wàllu média duma ci fàtte jëmm jooju ndax defal na ma ci formation alhamdulilah boo xam ne jéggi na dayo mhm. ci wàllu wolof ci wàllu waxin ci wàllu ni ñuy waxee mhm. léeg-léeg may tooñ ñi jàng communication ci université ma ne bu ngeen ñëwee man naa am lu ma leen dolli loo xam ne nii mhm. euh, loo yàgg rek am na loo xam ne yàlla dana la ko ci may te loolu yëpp Sëriñ Fàllu participé na ci lu baree bari tabarkal loolu daal moo indi sunu nekk ci internet ba 2013 lañ ubbi suñu seen YouTube. Mhm. après suñu émission yi mujj gi yu bari foofu lay dugg. dem na ba jamono. seen YouTube mooy Oustaz Makhtar Sarr Oustaz TV Oustaz TV waaw Oustaz TV mhm. Seneweb bu njëkk émission axiru zamaani ñoo ko daan produire. Mhm. mais ay jamono dañu daan toxu lu bari. ba mujj gi am na yoon woo xam ne bi ñuy toxu amaguñ studio. pour mën a produire émission bi ci lañ ma wax ne léegi nay produire. di ko def ci Oustaz TV ñoom lien yi. ñu koy jàllale ci Seneweb. macha allah loolu daal may na ma. ma am lu baree bari lu ma xam ci internet. macha allah ba léeg su ma gisee li ñu naan njug mu bees bi. waaw waaw ah dama dana ma am ñoo xam ne dama naan du noonu. wax nga dëgg de. surtout sama mbokk yi waaraateeg. nangam nangam léeg ma gisee yu bari. man leen dugg nañ ci millier boo xam ne xamaguñu ko. ko waaw. may na may tamit commentaire yëng du ma yëngal. waaw dégg naa ngay wax loolu bés. Hmm. ndax lan Seneweb laa dooree. waaw euh, Seneweb bi ñuy jógee ci ngay def émission ñu lay yónnee message ci sa email doo jot dara lu négatif ku ci nekk soppe lay doon kuy bind. mais bi ñu ñëwee léeg ñuy dugal émission yi mu nekk ay liens yu nit ñi di commentaire hmm. soo amaan temps da toog xool yenn commentaire yi. Hmm. maa ngi rappelé wu de 2009 yooyu. Mhm. ma mos wax ci làmb ji. Mhm. yàlla ko yàlla yërëm am na benn promoteur bu génn àdduna. Mhm. ma waxoon ci di dénoncer làmb ak xaraamam. xëy na naqari na ko ndax da doon tëgg làmb. mu génn ne daf may tontu. comme ni muy amee ba tey rek dara beesu waaw léeg-léeg Makhtar génn am kenn ko génn fële wax. loolu ma fàttali ko 2008 2009 la woon. ah bi ma tontoo après. ma wax ci li ma ci wax pare ca ma gis ku bind ne non saas bii commentaire boobu ba léegi duma ko fàtte ndax dafa ma dimbale ci li des ci sama dund mën naa ne lu nit di bind lu may yëngal amul loolu sax yëngalu ma ndax boobu ndax commentaire bi ndax dafa bind ne mhm. Oustaz bi mi ngi fii di wax ci làmb te mi ngi ma yoral sama xaru tabaski ba léegi fayuma ko ah <laughs> te xamoo ko te bi muy wax loolu fekk na am sama wëllëre boo xam ne gëj naa jënd xaru tabaski. ndeysaan ma ak samay frère ku ci nekk bu tabaski jotee moo lay jox xar. waaw koo xam ne yow jëndoo sax. waaw jëndoo maanaam dañ la koy may nooy lebee koo fay. <laughs> ci laa nag commentaire moom kiy bind la. Mhm. waaye di ki muy waxal. waral. Mhm. bëri na koo xam ne da ko gis mu am lu ko metti ndax dañ ko saaga dañoo nangam nangam ma ne ko ah, bul dugg ci internet. dëgg la li nu may it après ñu mën a engagé wu ci combat yi nu engagé yëpp te dara duñu ci yëngal. mooy li may wax ne tul na nu saaga. waaw ak i sos. yooyu ku bëgg dem ci Sénégal il faut yooyu nga tul ko d'abord. yow fexeel ba bul saaga sa bopp rek. bul mooy mooy mooy liñ lay wax nekk ci yow. nekk ci ah, waaw loolu mooy saaga sa bopp. Mhm. waaye ki nga xam ne li muy wax yow xam nga ne bu ko waxee da ngay xam ne du yow. Mhm. wax naa ko ci jamono yooyu ma amoon jafe-jafe ak woykat woowu. waaw gis ñu bari di def vidéo may ree ma ne leen léeg dañuy def vidéo ma taxaw ci seetu bi naan xanaa dafa am ñaari Maxtaar Sarr. yoo xam ne nii man benn bi xaw ma ko mais ñoo bokk tur ak sant. Mhm. ndax ki ma dégg nii gars yi di def vidéo di wax ci moom du mii nii du mii taxaw nii. wax nga dëgg de. <laughs> naa ci nettali waaw xëy na ma am ku ma xamul. naa ci nettali benn femme boo xam ne gisatuma ko sax muy def ay live yàlla nekk si jàmm. Mhm. xaw ma bitim réew la nekkoon xaw ma. def na ci vidéo yu dul jeex wane ne daal man daara laa yor xaw ma ci ban quartier nangam nangam nangam xale ya lu nekk mu wax ko. quartier ba mu wax xaw ma ko. fa mu ubbi daara du quartier boobu. Mhm. la muy wax ne moom laa def xëy na meneen Maxtaar Saar la. yooyu nag léeg-léeg mhm. dana am solo. Mhm. ku nekk ci yii ñu nekk. di wax ci média rawatina jamono fii mu toll. nga yeewu ci. lu ko mooy. danañ la ngalaab. lu leer ndax am na ko am lim jublu ci yooyu yëpp mooy bul waxati dëgg la am na lu yàggul lool matul ñetti at ci ginnaaw mu ma sa am ci yu ma def sorti am ñu naan ah dossier mbuur bi waaw <laughs> oustaz woote wuute ba déet woote wuute ba yàgg na loolu fële la woote wuute siiwal la woon lii matul trois ans ah genn kilifa waaw genn kilifa gu siiw mhm. am lu mu waxoon am lu ma ci wax ma gis gars yi fu nekk ñu publier fa na wax ci dossier mbuur bi wala ñu wax ci ah, ma leen ah mu jege ñu ñëw ne na wax ci dossier euh, li xewoon ci euh, cité Aline Saw li xew cité Aline Saw oustaz bi na ci wax man leen ba tey xëy na keneen la de <laughs> waaye mii toog euh, Sénégal gii ñu dëkk dara umpewu fi mhm. am na ci yoo xam ne nii su ma ko amoon ne dossier koy waxee ah non kon boobaa nag noppi naa nag ndax am na ñoo xam ne li tax ñu noppi gars yi xam nañ li tax ñu noppi loo leen. Mhm. waaye naay wax ne lu may wax ak lu ma engagé ku nekk mën nga cee wax waaye nag waxal ma loo xam ne damay sëgg. Mhm. yàlla ngi ñuy suturaal. alhamdulilah ba ñu dooree ba tey du njàmbaar. Mhm. mais waajur yi nga koy sante am na ci loo xam ne ni fa ñu juddoo ca Ndaraami Escale. xam nga boo juddoo ci dëkk. yaroo fa màggee fa. dem ba am lenn loo xamas tuuti ñu waat la pour nga ñëw ci dëkk ba di fa conférence. di fa wax ci diine. Euh, du ko ne lañ koy defal <laughs> te loolu am naa ko ci dëkk ba ma gane àdduna bu may toog ci tele bi waa Ndramé di ma seetaan du ma sëgg bu ma yégee bu ma yégee na ñu ngi may seetaan dañuy wax ne waa ji dafa am jaar-jaar yu bari yu mu jaar bi mu ci jaaree nag ba yàlla dogal mu mujj tuub nag uhuh. euh, tàmbali yoonu mbaax uhuh. mu taxaw ñaan yàlla ñi ma xamoon ñëpp yàlla ñu dee. <laughs> ndax am na lu mu bëgg kenn du ko xam. kenn du ko xam ci moom. si loolu nag ku ci yàlla suturaa rek nga sant ko yàlla. alhamdulilah waaye daal pour daaneel foofu. Mhm. Euh, mën naa ne bokk na ci li ñu dimbalee. Mhm. gannaaw yar jàngal geek ay woyjur ak fi ñu bokk sant yàlla ci mhm. famille yi bokk. mooy bi ñu tëbee rek dañoo déparé bërëb bi nga xam ne tey ñu bari fa lañ nekk di làqatu ci seen ginnaaw tablette. wala seen ginnaaw ordinateur di wax ci nit lu leen neex. Mhm. ñun foofu la ñu dooree. alhamdulilah ñun formation ñuy wax ci ñun formation ñu nuy saaga formation ñuy sos. formation ñuy dagg suñu vidéo formation ñuy jël croix suñuy photo ñun loolu ay fukki at ak nangam. parce que man bi ma daan dégg lu siiwal ngay waxtaan ba yàgg nga ni émission bi daayira bi ku dem ci internet bi dafa daan jaaxle fan fan lañ ko mën a dégloo parce que rajo xam naa nga dem jàpp ñu tegalaat la télé noonu mais internet bi may dégg loolu ci yow affaire bi xawoon na ma jaaxal mm-hmm. après ngay am euh, télévision wala ngay am portable di dugg di tàppe di xool ne ah kon lii mooy daayira bi mm-hmm. ngay dugg gis ay vidéo yu tegale mm-hmm. kon loolu du ndaw maanaam teel nga maîtriser teel a mën a dékku la fa ne. Hmm. effectivement waaw nga xam ne tey bari na ku pëccax koo gi dugal mu am problème wala mu gaaw a jaaxle xam naa maa ngi dégg nga koy jox conseil sax ku mel ni Ousmane Sonko ak li ko yàlla may. Hmm, hmm, bu dara daree rës ci kawam lan la war a xalaat xam naa di leen ñëw ci biir waxtaan bi. kon lu mel ni daal teel nga attan mbir mi. waaw teel nga